Samba. muritoo raw na alliance. ku woote gis présence. fu doon xaadim rasool. say kër mooy suñuy agence. bamba. say xasidaay suñ opulence. sëñ bamba. la woote du ambiance. borom safar xamuñu sa morom xaadimu rasool yaay sunu autosuffisance bamba yow yaa jar woote conférence sëñ bamba bu kenn toog naan day patience ngir bamba mooy doon nay rasool ngir xut buy waaye mu jël ko ci ndigalul nag sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Gaynde Fatma mom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi nga xamne ci ay xalaatam ak ci ay taxawayam ci lañu jóge momit liggey bi nijaayam dénk ko di serignam ya xaritam tañu bok liggey bi modi Cheikh Mouhamadul Bachir mom serigne Abdul khadir mi nga xamne mom la Serigne Touba Cheikh Mouhamadul muntakha tan def ko mu yore ay kaddom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 li ñuy njëkk a jégalu nag mooy naaja gi ndax onze heures et demi midi waxoon waaye ku bëgg a jëg yoon woo xam ne dangaa bëgg yoon wa lépp mat doo ko gaawtoo ndax fi ñu jëm si bu dee taarix lañ bëgg danañ ko fi fekk bu dee histoire ci yoonu murit danañ ko fi fekk bu dee mbokkum Sëriñ Tuubaa it danañ ko fi fekk te loolu boo ko bëggee wan àdduna bépp gis ko sa waajtaay doo ko gaatoo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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi fii ci kanamu sunu jëwriñu tedd ji di sëriñ Kosso Mbacké di yëkkati kàddu yoo xam ni ci turam lañ koy yëkkatee mu jëm ci sëriñ Modou Mbacké si mii nga xam ni moo jiite karawaanu màggal bii ñëw fii Dendey tey te karawaan bi ñëw ci biir liggéeyub sëriñ Mouhamadul Bachiru Mbakke moomu sëriñ Abdou Khader ak ci biir liggéeyub sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke sëriñ Abdoulaat Mbakke moom Cheikh Amadou Gaynde Fatma waaye mu mel ni li waral tànk yi lépp ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaqa ci ngeen koy dox ngeen ñëw fii ci Dendey ñu di leen dalal jàmm di leen defal rek ahlan wa sahlan muy kàddu yi dalal kàddu yi dalal lañu leen di defal waxtaan wi la ngeen soxla ci Cheikh Amadou Ndoumbe Xabaan bu ñu demee ci jumaa ja Serigne Ousmane Mbacke dana leen ko defal ni ngeen ko bëggee fii ngeen ñëw nag boroom ëtt bi mooy Cheikh Ibrahima Mbacke mooy Cheikh ma Ndoumbé ci kaw suuf ku bàyyi xel seen ñëw gii la ku ci am yëg-yëg la waaye xat-xat ak ñu ñeewantu ko ci jotaay bi moo tax mu jël lépp teg ko ci loxol jëwriñam di Serigne Cheikh Bintou Mbacke Serigne Cheikh bi ngeen ko waxee ni dañuy ñëw ba nëga amul benn yitte budul li fi seeni tànk ngeen am ko ni ngeen ko bëggee loolu moo waral barab bu nekk ak na muy doxe dëkk bii di Dendey sëriñ Ibrahima Mbacke da koo teg ci loxol sëriñ Koso Mbacke mii moo yor baat bi moo yore liggéeyu jumaa ji moo yore lépp moo waral comme Dendey ngeen di ñëw di xadara Cheikh Ahmadou Ndoumbé Xabaan mu wax sëriñ Koso na leen dalal ci kàddoom la ñuy wax ci turam la ñuy wax njabootu Cheikh Mandoumbe gépp nag teew nañu sëriñ Abbas Mbacke mi ngi nii mooy imaamu dëkk bi di doomu Cheikh Modou Xabaan sëriñ Abibu Mbacke mooy taawub sëriñ Ibrahima mii Cheikh Mandoumbe ci kaw suuf mi ngi nii moo ak sëriñ Ahmed ak mboolem ay rakkam ñoom ñëpp teew nañ sëriñ Amsatu Mbacke ngi nii ci sama wet ñoom ñëpp dañoo bàyyi lépp luñ jàppoon ngir ñëw jëmmal bés bi sëriñ Cheikh Bintu Mbacke sëriñ Ahmadou Mbacke mi ngi nii di rakkam di di tawam mo ki rakam ñu ngi teew Mamor Dendey khalifam di serigne sambake yalla na fi yag te wer jëwriñam rakam leppam sa si di serigne Modou Abdoulahi mi ngi ni tew Touba ngir tewé jotay bi njabotuk serigne abibou mbake ñu ngi ñi tew di serigne Cheikh mbake ak serigne Jili mbake mbollem kër ke Cheikh mundumbe yep nañu wa kër sëriñ xabbaan moom sëriñ Abdou mu ni ma ko waxee sànq muy sëriñ Jili ak sëriñ Cheikh ñu ngi ñuy teew ak mboolem kër Cheikh ma ndumbe yëpp. kon daal ci tënk njabootu Cheikh Modou xabbaan gépp waaye njabootu Cheikh ma ndumbe gépp ñoo àndandoo bàyyi lépp luñ jàppoon ñëw teew fi ngir dalal leen ànd ak yéen bis bii nga xamante ni bii ñëw ngeen ci benn pàkk ci pàkki sëriñ Touba yi. li nga xam ne nag moom laa ci wax mooy ci kàddu sëriñ Koso ñu ngi leen dalal jàmm bu baax incha allahu waxtaan wi day doon waxtaan woo xam ne dafay ànd ak teg baaraam ndax kilifa mën ngaa wax ci moom lu baax lu yéeme waaye wax ju nekk bu amee firnde dana dimbale ñu koy déglu ngëm nga mën a yomb moo tax dama leen di tënkal rek Cheikh Mandoumbe mii ngay ñëw di gëstu si mbiram ñun ñëpp xam na ni yoonu murid day bu fekkonte ni am mbaar la dañuy wax nii yeen ci jën yi ko téye mooy jën wii di ak dëggal ak bëgg sëriñ bi ak liggéeyal sëriñ bi ak addiyal sëriñ bi yeen ci jën yooyu moo téye moo téye yoonu murid yaari jën ya nag gisuñu ku ci nekk ci kanamu Cheikh Ahmadou Ndoumbé te loola fu wér lañ ko teg ay firnde yu wóor la jën woo woowi di haddiyal sëriñ Saaliwu Mbàkke ci boppam de moo wax ni ku tedd ki di Seexul Xadim wax na ni Ahmadou Ndoumbé li ma jox kenn joxuma ko njabootu sëriñ Saaliwu ñu ngi fi ay jëwriñum ñu ngi fi ñu yàgg fegg ay kàddoom ñu ngi fi toog ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci kaw suuf kon day dëppoog li ñu wax ni ab junni mooy ki ko njëkk a jox ko sëriñ Touba Cheikh Moussa Ka bind na ko moo njëkk a fab junni dërëm booleeg wurus wu naa ngalam teg ci loxol Bamba magam mësa sàkkul àdduna kon addiyee moom day teg tegtale ni Cheikh Mandoumbe jafe na lool nga gis ku nekk ca kanamam ci nim doon doxe ci wàllu addiya lëggéey bi fanweeri gëléem ak juróom daana bàyyi ko fii ñuy sëf dugub di ko yóbbul ko tedd ki ca sàq ma nekkoon daaru xuddoos ci diggante kër sëriñ abibu ak kër sëriñ soxna xadi gay na soxna xadi faat ma sàq moomee ne daana ko duy ba mu fees ak pepp njabootu sëriñ tubaa daan ko jëfandikoo di ko saafara woo loolu yi taxoon na mu dem ba sëriñ bi defoon ko mu nekk jëwriñu képp kuy tërbiyewu di wut ngërëmul yàlla ci toolu sëriñ tubaa ba bis mu woo ko mu ñëw mu bind leetar ni ko ahmadu def naa la jëwriñu képp kuy wut ngërëmul yàlla Cheikh Moussa Ka bind na ko Bamba ko jox mbindum loxoom ne ko sasal ma say moroom jëwriñ nga tool bi yaay boroom jaxaari baykat metti na kon addiye bi leer na liggéey bi leer na yaar yooyu nag munta am lulul dafa lalu ci kaw ak dëggu akuk bëgg kon loolu rek laa leen mën a junjal ci kii ngeen fekk ci Cheikh Ahmadou Ndoumé Xabane la ca des li ngeen soxla woo lépp nag bu ñu demee ci barab bu mag ba sëriñ Ousmane dana leen ko gën a leeral waaye daal noo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla bar jotaay bii bokk ci jotaay yi nga xam ne yi gën a barkeel la jotaay yi sëriñ Touba gërëm te seen liggéey bi ñaq wu ci rot yàlla na leen ci sëriñ Touba fay lu kawe seen jot lu manqué nag ci matadik doomu aadama guma gaar akuk manqué akuk dooye ak xel mu jaxasoo moonu jàpp ba loola manqué waaye lépp lu ci mat na xam leen ni mi ngi bàyyikoo ci sëriñ Kosso Mbàkke mi nga xam ni mooy sunu kilifa di kilifa ak jotaay bi di kilifa ak dëkk bi sëriñ bi jël liggéey bi lépp teg ci loxoom ci moom la bàyyi ko noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh